pa asalaamaaleykum yéen eh, sama mbokk patriote yi sama mbokk eh, sénégalais yi surtout sama mbokk jigen ñi yéen eh, mam yi lay commencé sax yéen yaay yi yéen dom yi yéen mak yi yéen rak yu jigen yi yéen xarit yu jigen yéen cousine yi ma ngi ñëwaat encore di waxtaan ak xamna ni gëj nañ déggante ndax eh, am na mbir fu muy toll du wax moo koy sottal wax bi sax mënta ñàkk naam parce que eh, wax waxaat du bari wax wax waxaat fàttali la te am na ñoo xam ne dañoo gaaw a bàyyi seen loxo ñoo xam ne dañoo gaaw a découragé ñoo xam ne lu ndaw rek ñu emporté wu loolu moo tax wax bi day bax waaye parfois dañ nan nañ ko baye ñi nga xam ni ñoo ci gëna fess fës ñu kon di nek ci liggéey suuf bi waye parfois du ñak de temps en temps nga génn euh, saafante ndax wax bi bi nga xam ni moo dugg ci xolu doom adama kenn xamul waaw yàlla mooy barkeel kàddu euh, di ñëwaat di waxat encore rek li nga xam ni moo war a suñu waxtaanu fep suñu waxtaanu biir waxtaanu biti waxtaanu jotaay waxtaanu group yi surtout ñun patriotes yi mooy libérer Ousmane Sonko free Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa jot pour génn fi mu nekk ngeen baal ma maa ngi baal leen maa ngi jéggalu euh, climatiseur bi la daf ma jege trop ma ragal ni li may wax fii du leer moo tax ma ko doon wàññi waaw di wax maa ngi jéggalu nag di nuyu ture ture yeeg euh, boo ne salaamaaleykum rek bàyyiwul kenn waaye dañoo toll moment boo xam ni du moment dootul moment kaf dootul moment ree bien vrai que nit nag nit la rek parce que maa ngi dégg ñenn ñi naan euh, keroog li génn ci euh, ci ci ay ci ay jeunes dem ci bëre bi su fekkoon génnoon nañ xam nga te dañu libéré Ousmane Sonko kon fi mu nekk génn na fa ñeneen ñi ne sénégalais yi dañoo sonn ba nga xam ne buñ gisee mbumbaay sax dañ ciy topp ndax xol yu jeex xam nga ñaar yëpp baax na waaw ñaar yëpp baax na lu jot rek yomb incha allah ndax mbaam boo xam ne boobu léegi ñu ngi ci bàyyiwuñu mais il faut nit ki ku nekk ñu bàyyi koo gis-gisam ak ni ñuy xalaatee ak ni mu fokk ni non la mëna a xeexee bi parce que xeex bo gis ñii dañuy euh, comment dirais-je dañuy bind ñii di wax ñii di firi xam nga ñii di togg ñii di yak ñii di distribuer ñii di conscientiser xeex dafa bari ay patch fi ma tolloon sank moy euh, ci jigen ni moy war sama mbokk jigen ni encore defo na fi live temps yële passé danañ leen libéré ji suñu dom bala ñu ñu koy reyal di ñëwaat encore di réitéré lolu nañu leen dem libéré suñu doom bala ñu koy reyal luy jot jot na ginnaaw dee amatul lenn loo xam ne nii lu ñu war a waxtaane la wala lu ñu war a xool la wala lu ñu war a xalaat la wala lu ñu war a gëstu la parce que lu ne faañ kenn du ko jeex encore une fois suñu mbokk Casasin yi nga xam ni ñoom bu fekkoon ni Sénégal gépp mel nañ ni ñoom ci doxalin kon Sénégal romboon na fii kon injustice bii du taxaw ndax ñoom wane nañ seen jàmbaarte naam Sénégal gépp ay jàmbaar lañu waaye ñoom seen façon de combat dafa wute ndax lu tax mu wute mooy ñoom dañuy taxaw jigéen ñi génn góor ñi génn yaay ji génn jiite waaye yaay yi ñoo ne ci kanam bu fekkoon Sénégal yépp noonu lay demee lu xew yaay yi génn ci kanam ndax avant tout ginnaaw yàlla nag yaay mooy jur yaay mooy yar soo lépp lu ñuy def yaay lañ ci war a séentu waaw ñun ci suñu culture dañu toujours na góor ñu jiitu ci suñu diine waaye buñ ko defee par respect moo tax ndax yàlla suñu borom mu ne na góor jiitu jigéen topp ci waaye ku nekk xam na jigéen ah, lépp lu mu lu mu sumb lu mu dugal loxoom ah day sotti parce que jigéen bu màttee day dagg waa jigéen ni mu amee détermination mun na yar njaboot mun na liggéey te ku nekk xam na ni kër jigéen moo ko yore ci côté finance ci amin ci côté finance éducation xam nga religion bi lépp jigéen moo ko yore organisation bi kii mën a téye loolu nag boole ci parfois day ëmb wala parfois mu gis mbaax ba pare mën a téye loolu yépp ak ay situation yi muy am ci àdduna ay parents am magal xam nga famille jëkkëram wala famille jëkkëram lépp mu boole ko téye kooku lépp lu mu jiite day taxaw donc na jigéen ñi encore une fois jugaat taxaw bu leen tëdd bu leen nelaw bu leen toog parce que mbir mi dootul suñu mbir encore ñun suñuy mbir moo mën naa ni presque passé na presque passé na xam nga mais mbir mi suñuy mbiri doom la loolu moo tax képp ku yeew di xool sa doom boo ko xoolee nga koo yërëm parce que war nga mën a wax ni lii ma àndure te àdduna fu mu jëm gën a metti mooy gën a tar mooy gën a tàng mooy gën a jafe ñaanuma yàlla mu ànduure ko te am na doomu aadama yoo xam ne dëgëruñu dëgër goo xam ni bu mettee rek ñu résister bu mettee rek ñu dem benn côté bi à côté ndax nit moo mel noonu te seytaane euh, opportunité boobu lay wër doomu aadama bu dem ba nga xam ne li olof njaay naan ku nekk ci teer ñu sànni la jaasi nga jàpp ci mooy xam nga ni amatoo choix te pourtant am nga choix ba léegi de waaye am na ñoo xam bu ñu jaaxlee rek dañuy daal di xam nga dañuy daal di baisser les bras jigéen nag melul noonu waaw jigéen xëpp yóbbu ko xanaa jigéen bu xamul boppam de waaye jigéen bu xam boppam xëpp yóbbu ko kon jigéen ñi encore une fois jóg leen ngeen wane seen bopp ci Sénégal Casamance woote nañ le set novembre incha allah ni dañuy ni dañuy libérer seen doom gënuñu ñoo bëgg Ousmane Sonko gënuñu ñoo jur Ousmane Sonko gënuñu ñoo bokk ak Ousmane Sonko gënuñu ñoo ànd ak Ousmane Sonko soo le reste du Sénégal jóg leen wan waa Casamance que ñun ñëpp ñoo bokk Ousmane Sonko xam nga. suñu njëriñ la ñun ñëpp parce que Sénégal bu neexee kenn du ci xam nga euh, euh, ñu ko ci mëna waxaté kenn du ci di di dem di di di di di di euh, ci rëcc lañ nane bu naqaré kenn du ci rëcc mais bu neexee kenn du ci rëcc so encore une fois ma ngi leen di woo yéen jigéen ñi fépp ñu ngeen mënti nekk ñaan yi baax ñëpp dañuy japp du julli di wo di ñaan mais bu fekkoon ni ñaan kese moy tax nit ki li bëgg mu am ko defe na dama koy waxati di ko waxati encore té def ñëpp xam nañ ko xana kay encore fatali rek kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du jóg dem xeexi kon du jël jaasi parce que kenn gënu koo bëgg jàmm kenn gënu koo yaru kenn gënu koo jub kenn ëpp koo yërmande kenn gënu koo xam li yàlla wax mag mais xam gi mu xam ne yàlla wax moo tax mu xam dafa moment boo xam ne ni taxawaay moo koy maye. taxawaay moo koy maye Mali gii barki dem ba bëggee libéré Mali bal tàkkul pono tàkkul bakkan wat waddul nit xam nga gaañu gaañu amul. mais dañuy def chaque bu buñ jullee ba pare am imaam bu ko jiitee imaam bu ko jiitee boo xam ne lii dootul xeexu du ah, euh, ci waxatee xeexu euh, nit ak nit li xeexu lislaam la parce que jullit ñi bu ñu amee jàmm lislaam yokk lislaam gën a dëgër bu jullit ñi ñàkkee jàmm lislaam sooxe ndax bu ñu nee lislaam xam nga en tant que tel waa entité la mais ñi ñay doxal lislaam ba mooy jullit ñi mooy doomu aadama yi donc mu jóg jiite ko ñu taxaw wane seen bopp ba li ñu bëgguñu am ko maliens yi gënuñu ci dara ñu ne ñoom ñoo bokk benn maam buñ leen gënu gënuñu man nag jigéen ñi encore lay woo parce que xam naa taxawaayu jigéen ñi lan la jigéen moom bu jógee par am pare am détermination ni lii laa bëgg a def ah yàlla rek moo ko mën a téye sow waa Casamance woote nañu bu ñu ci jiitu te bu ñu ci mujjee bu ñu ci jiitu bu ñu ci mujjee nañ taxaw ak ñoom xam nga nu ci mbagg ak mbagg taxaw ak ñoom mbagg ak mbagg ñoom bu ñu génnee sa Casamance le set na région yëpp génn te du ma wax ba pare te du te du duma ko bàyyi mu ñuy massawu encore une fois di leen ñaanal xam nga lu mel ni tey liy xew Palestine jullit bu bu fi nga nekk yow en tant que jullit mën nga ni kat mënuma ci dara ci naka fisiquement mënuma dem di xeex parce que dëkkuma fa mais fi nga toog mën nga ñaan ci xeex la bokk. fi nga toog mën nga joxe buñ bu fee gis nga euh, organisation yu joxe pour dimbale nit ñi pour ñu mën a lekk ca Palestine fi nga toog aussi mën nga fekk da ngay def ay ay ay vidéo mën nga def ay vidéo di ko naq mun nga def ay post xam nga mën nga ci wax loolu forme da xeex na mais bu dee Sénégal kenn amul kenn mënul toog ni mënuma ci dara ku ci ne mënuma ci mënuma ci dara rek vraiment war nga seetaat sa bopp bu baax a baax a baax a baax ku toog tey li xew Sénégal nga ne mënuma ci dara du wax du jóg du xaar dara du benn façon boobu xam nga boo ko jéemee combattre nga ne mënu ma ci dara mooy yow tey bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwaatoon ñuy néewal doole lislaam da ngay toog ne mënu ma ci dara sow lii nii di xew Sénégal amul benn sénégalais boo xam ne ni xanaa nga naafeq ba fu naafeq yem may encore remercier sama càmmiñu bopp boobu di ji Rafet keroog di ko Tange invité. benn wax rek laay ci li wax yëpp mënu ma mënu ma àggale émission ko loolu tax mënu ma koo àggale di di po di di di soi-disant journaliste diplôme journalisme mais posé vous ay question daf doon sixal bëgg a allah ji ay wax benn ñaareel bi daf doon accuser moom ay da doon chargé da doon chargé Sonko di di patriote parce que ku lay laaj du la ne tax du tax ngeen doon lakk dëkk bi ku lay laaj du ne lan moo tax 14 personnes dee ci te nga xam lan moo rey 14 personnes yi te yow neewuloo policiers yi rey 14 personnes lan moo tax boobu ba léegi benn enquête mënewuñ ko ci ba xam kan moo leen tiire parce que ay loxo moo leen tiire ku nekk xam ne nee nañ xam nga du arme blanche moo leen rey ko soo ko leen tiire ña arme ya du sénégalais yi sénégalais xamul yore arme wala boo compté sénégalais di nga di nga compté cent wala 1000 sénégalais kenn mo ci am arme té ay raison motax donc ñun ñëpp xam nañ li xew ñun ñëpp xam nañ li ñu war def ñun ñëpp dañu ñëwaat encore di faat parce que mënu ñoo nopi mais kenn ku ci nekk yow ak sa sa diggante ak sa borom xam nga instant bi ni réew mi Sénégal li fi xew ni hmm do ci mucc ak fu mu ci nekk ci aduna bi boo ci bàyyee sa waar. di nga mucc parce que maam borom Touba waxoon na ko nee na woon yéene ñëpp jàmm lu tax ñëpp am jàmm waaye duñ ci mucc lii tam pare jóg xeex ak forme boo ko mënee xamoo de li yàlla di def ëllëg de waaye yow ak li sa diggante ak sa borom dina rafet parce que xam na ni ba réew mi soxlaa ñuy jixaat jóg nga def sa kent lay kàttan pour mu baax te ba nga koy def danga ko def te yàlla rek tax ndax amoo ci dara ñun ñi amuñu ci dara xam nga luñ ci am xol bu metti coono ñàkk nelaw ñàkk lekk xam nga xalaat bu bari ak wax ju bari ak fu ñu toll di liggéey li ñu mën suñu kenn lay kàttan pour projet bii taxaw nga xam ne ni ko Alaaji Rafet waxee wax wax waxee démb ne projet bi projet yàlla la man de yàgg naa gëm loolu yàgg naa gëm ni projet bi baatin bu rëy moo ci nekk baatin bu réy moo ci nekk te bés bu nañu gis baatin bi waaye nag baatin boo dafa am benn sabab bu koy taxawal ndax lislaam ba mu ñëwee mënoon naa ñëw rek taxaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ci def dara ndax yàlla suñu borom mën na lu ëpp loolu mais koo teg ci ay loxo mooy jibril alayhi salaatu wa salaam mu jóge fa ñëw ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te pourtant jaar na ca maam aadama ba ci ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka jiitu ak ka mujj waaye pour mu leer nañ nañ naññ nañ ci doomu aadama yi ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko jaarale donc bu ko neexoon du ko fa jaarale ñun tamit pareil projet bi projet yàlla la mais yàlla du wàcc duñu ko defaral yàlla du wàcc duñu ko xeexal yàlla du wàcc dañu ko nekkal en dañu ko mettre en place ñun ñii di ay nit mu jox ñu xel jox ñu capacité bu nit bu ñu war a taxawalee société taxawal réew nga xam ni tey dangay dem fu mel ni Dubaay tey building building bi gën a mag immeuble bi gën a mag fa la nekk ay loxo ñoo ko tabax ay doomu aadama ñoo ko tabax su intelligence boobu ñu am capacité boobu ñu am ah la ñu utiliser ci projet bi pour mu taxaw soo pour gàttal parce que man dama jàpp nii maa ngi gërëm activiste yi bu baax baax a baax ñoom ñëpp man dama leen a yàgg apprécier yàgg leen a naw te li ngeen di liggéey ah di ngeen ci gis fii fay gis si fële fay te dina law ba ci seen si ak seen si taataat mais dama leen di ñaan bu ngeen di defati seen live yi def leen ko mu gën a gàtt ne constructif ba pare gàtt waaw tënk leen ko parce que déjà instant bi temps amul àdduna xat na lool ñaareel bi mooy xol yi fees nañ lool ba nga xam ne parfois nit day wax dëgg sax mais sa xol bi day fàtt ba doo ko bëgg a déglu maa leen di ñaan yéen suñu sama mbokk activiste yi sama frère yi sama sœur yi éviter leen live yi nga xam ne day jël ay une de temps bu guddee ba gudd na def na def quarante cinq minutes bu guddee ba guddi mais bu éviter leen laay fu trois heures de temps yeeg deux heures de temps yeeg une de temps yeeg une heure et dafa gudd vraiment dafa gudd nit ñi amat xam nga amatuñ instant bi patience bi léegi beneen temps boo nañu ko jël def ko xeexu suuf ñi nga xam ne ñoom ñoo xam nga ñoom ñooy commentaire ci seen ci ci live ñi nga xam ne ñoom ngeen nekkal en contact liggéey leen ak ñoom ci suuf te liggéeyi kaw bi xam nga ñu bàyyee ko instant bi avocat yi nga xam ne ñu ngi ci télé yi ñun ñu def live yu gàtt parce que temps boobu ñu ko utiliser pour feneen man dama leen di suivre yéen ñëpp mais parfois mu gudd ba nga xam ne ay dagg-dagg rek laay mën a to déglu parce que jot gi duma ko may xam nga ci ci liggéeyal liggéey bi ñu nekk nii pour na pour pour pour pour àgg fi ñu bëgg a àgg ba pare aussi sa mbiru bopp itam sa diine da lay jëlal temps sa famille da lay jëlal temps yow sa yow sa yëfi bopp da lay jëlal temps dañ éviter live yu guddi li ngeen di wax am na solo lool mais tënk leen ko bu guddee bu gudd 30 minutes 45 minutes maa ngi leen koy ñaan man la seen sœur Fatimata kanji xam nga defe naa tay man lo rek mo mo indi woon fii saafonte ak yéen encore une fois leen wax ni bu ken décourager ndax ku décourager ci aduna moy amo amo yaakar yowmal ma la xiyam képp koo xam ne nga ni yowmal ma xiyam ëllëg ñaan yalla suñu borom may la aljana ba tax ngay ci aduna aduna examen la de résultat ba nga àllaaxira ko kon kon waro décourager ndax àdduna li ci li fi nekk bari na bari goo xam ne ni parfois métti na métti goo xam parfois compliqué na compliqué goo xam ne nii soo découragé ci àdduna kon kay nan ngay nan ngay réussir sa examen pour ëllëg ñu mun laa ñu xam nga la transféré aj transféré la àjjana ku bëgg ñu transféré la àjjana fii da nga ciy sëgg rek te wa bàyyi li am solo mooy nga sëgg ci dëgg li am solo mooy nga sëgg ci lu neex yàlla tànk yaa ngi sëgg ci lu neex yàlla wallaay bu ñu fi nit fekkoon nag ay ay ay ay yet bu ànd ak dégg la dóor sax doo ko yëg la yàlla defaloon si yant ah, yàlla ah, maam Ibrahima lay defal keroog bañ ko dugalee ca safara sa yàlla joxe commandé na safara si man maa la commandé pour ngay tàng waaye sama jaam bi bu bu ci duggee seddal sedd boo xam du ko lor ñun aussi yi dëgg boo ci nekkee lu ñu la munti tegit day mel ndoxum naan président ko fee mu nekk ni metti na de metti na lool. waaye ci biir xolam parce que kaso kaso du kuñ tëj ci néeg pour man ñaari kaso rek moo am kaso bi jiitu mooy kaso boo xam yow sa xel dafa tëju dañ laa tënk ba mënoo wax dañ laa tënk ba mënoo jëf dañ laa tënk ba mënoo xool fuñ la xool la ngay xool luñ la wax loo ngay wax luñ la bëgg nga dégg ngay dégg boobu mooy kaso àdduna benn kaso bi nga xam ni itam nag c'est inévitable ñëpp a ciy jaar muy kaso bàmmeel ñaari kaso yi rek moo am soo fa mu nekk du kaso li ci metti ci ñun mooy injustice bi ñun lañuy xeex benn bi ci topp mooy li mu waroon dox yëpp doxu ko ni privé ko ay liberté yoo xam ne moo ko moomal boppam mais ci biir xolam a xelam ak xalaatam nekkul ci kaso parce que kenn mënu koo privé li mu bëgg kenn mënu koo privé li muy xalaat kenn mënu koo privé fi mu bëgg a jëm kenn mënu koo privé li muy nas te la preuve en est certaine mu ngi ci biir waaye daal na ni mu ngi ci biti tey soo encore une fois jigéen ñi yéen laay woo nañ leen jóg dañoo taxaw nag mosuñoo toog waaye bi yoon nañ taxaw taxawaay bu yàgg ba lañ bëgg ñu am ko buñ taxawaatee bu ñu toog tànk liñ bëgg amuñu ko buñ taxawaatee nañ su suñu baat àgg ca kaw ne suñuy kanam fasu nañ wone dañoo mer nañ wone ni dañoo mer xam nga ñuy mer parce que injustice kenn waru koo naw ndax jaam bi la yàlla teg rek nga war a nangu mais lu la doom aadama comme yow waroo koo nangu boo ko sa ñàkk fayda la te dama gëm ni dama gëm de xaw ma de ni yàlla day mere sax kii toog ñu koy teg injustice parce que yàlla bur bu baax la mais itam bur bu am fulla la bur bu sévère la te lépp lépp lépp lu ne ci moom da koo def ci ñun moo tax bëggul ku ñàkk fayda soo lii ñuy nangu ni buñ ko continuer defuñu ci dara ñun ñàkk nañu fayda ñàkk waaye dinañu ñàkk nañu bopp te buñ jàpp ni yàlla suñu borom dinañu ci far parce que ñoo ko bëgg ñoo ko nangu su wax bi jubee si yàlla suñu borom la bu dëngee ci man la xam naa ni xol yi neexul moo tax kanam yi mënta leer comme ñu war a leere man la seen sœur Fatimata Kandji maa leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen encouragé encore fois di wax ni bu kenn bougé yoo taa képp koo xam ni am nga yaakaar àjjana amal yaakaar ci projet bi xeex bi ngay xeex ci projet bi rek mën na nekk sa buntu àjjana waxuma la yow rek mais lépp lu takk ci yow maa leen di bàyyi ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu